voilà ki nga xamante ni itam moom mooy Wally Seck yaayam ngir gis ne fan yii yëpp macha allah ñu ngi ko gis mu koy ñaanal ba ba ba jooy te sànq yaa ngi doon wax benn acte boo xamante ne wala benn waxtaan boo xamante ne sa waajur bu góor mu ngi la ko doon wax nga jàpp ko di ko jëfee te boo gisee sa rakk jooju tey muy def yenn action di ba papaam dëddoo àdduna lu mu doon def benn da ko yokk ñaar si muy social wala sax si liggéeyam wala si leneen ak leneen ba yaayam tey di ko remercier di ko ñaanal publiquement donc tey mu def euh, la toile. macha allah ñun ñëpp di ko waxtaanee tey Pape Diouf duñ toog ak moom nga xamante ne seen xam nañ ne magam nga te saa nekk danaan Pape sama sama sama grand frère moom kàddu boobu rek lay wax lu ni mel boo ko gisee tey yow lan lan la lay def en plus que yow lu ni mel xam nga koo dund si li nga ko wax ak si sa waajur bu góor ak ban conseil ngay jox ki nga xamante mooy sa petit frère. mais kontaan ci lool lool lool ndax li ñuy wax rek maane ne mm, waajur. Euh, dafa am solo ci doomu aadama te nag waajur lépp loo ko defal rek euh, doyul donc may profité ci sama rak Wally Ballago di ko ziyaare ci bés bu tedd bi di ko ñaanal euh, ndax nag waajur dafa am solo te maa ngi gis ci internet bi yaayam di ko ñaanal maa ngi gis aussi sociale bi muy def jëmale ko ci doomu aadama yi te lii rek mooy Sénégal dafay fekk si wax bi ma la doon wax sànq naan la tey lépp lu ñu am askan wi moo nu ko jox ku nit lépp lu ñu am rek sunu wareef mooy ñu delloo ko askan wi donc papaam ji nga xamante ni tey ma nga tëdd ci àjjana euh, kontaan na ci moom papaam bég na ci moom lépp lu mu mën ren yàlla na mën lu ko ëpp déwén. lépp loo xamante ni mébét na ko ngir déwén yàlla na ko suñu borom barkeel dooleel ko ba mu def ci loo xamante ni kawe na njortam kontaan na ci kontaan naa ci loolu ndax loolu mu def artistes yi yëpp la ko defal loolu mu def mi ngi won wone un bon exemple pour rakkam yi nga xamante ni tey ñi ngi war a ñëw topp moom it ci ginnaawam donc lii mooy Sénégal ndax nag amuñu lu dul sunu Sénégal gi te lépp lu ñu am askan wi moo ñu ko jox kon ñu nit lépp lu ñu am fas yéene nañu delloo leen ko yéen askan wi ndax yéenay suñu raison de vivre